femmes. maa ngi sant yàlla rek comme bari yàlla dafay taw te teechir ñu fekk ko si jàmm ak salaam waaw di sant Serigne Touba wér fa seen màggal si si jàmm ak salaam daal. ban ban ban impression e e, ngay am maanaam ban jàngat ngay def après màggal gi c'est la première fois nga màggal wala. c'est la moom sëñ bi sax da ko waxal boobu nee na xew bu ma ginaar ba ci gileem moom loolu ci def ren da nga e def déwén lu ko ëpp. daaw fi leen màggale te gis nañ ko ren te dafa gën a feex daal gën a kaw suñu jot. nga sant yàlla rek daaw daaw ànd ma ak moom kon ren su ma moom sant yàlla rek. am na changement beaucoup parce que kontaan maa ngi ba États-Unis ma fiy magalee daaw maa ngi magalee Touba kër daloon kër Serigne Abdou Karim nekk koo xam ne man daf koo bëgg. kon bu ma fekkee fii dama koy ñëw teew lu bàyyi sama lépp ñëw teewlu ko parce que ñëpp a fi teew. ginnaaw fekkee nañ ko ren ci màggalu Cheikh Ahmadul Khadim gi voilà moom sant rek sant bu baax a baax a baax xam ñun moom ñun ñu jógoon bëre bëre daaw ci heure bi yàlla yàlla def moom ñu fekke ko bay dajewaat lool loolu daal sant rek sant sant bu baax baax tey ñaan saa borom yéen it moom yéen a yéen a ngi def kii bu am solo comme di xool ni ni ni ni màggale ci yor-yor dëgg yàlla lool loolu tamit yàlla nañ suñu borom daal fay. man ci fii laa jógee maa ngi New York quoi fi laa nekk depuis un an ko quelque daa daaw fekk woon nañ ko ren ñu fekk ko xam nga di sant yàlla nag bu baax a baax a baax. di ñaan déwén ñu fekk ko aat yu bëree bëree bëree bëree bëri di am mbégte boo xoolee xam ni dëkk bi yokkute am na fi quoi xoolal li fi teew ci mbooloo lépp rek lépp ngir mbégte mbégtem sëñ bi quoi waaw liggéeyub sëñ bi moom amul tànk ginnaaw quoi tànk kanam rek la am lu ci waay mën a def tamit di yokk ba yëg ko ndax ko xool ren xam ne ak daaw am nañ différence bu baax a baax a baax a baax ñu ngi yàlla nag bu baax a baax a baax. waaw waaw wute na trop te encore lii nii dafa nekk loo xam ne ñun dañ see fier bu baax a baax parce que gis nga li yombul daal ñaata doomu aadama ñoo fi ñëw lu fii nii parce que boo xoolee bés bi bés bu mag la. ñëpp a bàyyi été yi ñëw màggal ko lii na ñun a si kontaan parce que ku mu neexoon nga toog sa kër fa mais defoo loolu ñun ñëpp ñu ngi am mbégteel bu baax a baax suñ Tuubaa koy wuyu ñu booloo takku rek bu gars la laaj tamit li nga jox am rek nga joxe ko te xam sëñ bi daal xewul dara daal lu ko waa jox daal sa bopp nga ko defal quoi. waaw di sant rek comme ni ko sëñ bi waxee woon rek bis bi moom ginnaaw bisu mbégte la moom fu waaye mën a nekk rek boo jotewut ca dëkk bu sell ba moom faal foo mën a nekk mën nga ko fa def quoi waaw ndax mbégte mi mbégte mi moom faal dafa yaatu nu ne la ko nit mën a defee ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp waaw ku bëgg a yegg si tamit ñu ngi lay ñaanal xam nga nga dal jàmm daal. man nag même bi ma ñëwee man ci biir laa kii yéen moom doon duru durus tuuti moom ñuy yëkkati yëkkati mooy ñuy jàng ci arxulaan ñoom ñoo ngi ci suuf. wax dëgg yàlla comme ni ko sëñ bi daal diglee moom wax dëgg yàlla ñoo ngi koy sàmmonteeg loolu jàng arxulaan jàng xasida bernde waaw te lépp luñ ci daal yàlla na suñu borom boole lépp moom ci yëw